ndaje bi liko waral eh, premièrement moy eh, wo ñep déjà aduna bi yep ci walum recherche ndax dañu gis ni euh fimu toll ni ci lepp lu nane maladie bi nga xamni du walé ni maladie non transmissible eh, ci Afrique dañ ci am ben retard bo xamanteni ni si faw ñu jog ci def ben lu melni monitoring saytu ko ngir di xam li waral feebar ak naka lañ koy saafara ci lolu euh, ci la moom mbëbët African recherche Network déjà waye li waral appel wi moy ginnaaw biñu biñu biñu xamé lolu dañ fee bu wo ñepp ñu nga xamanteni ci walum seen xam-xam match na ci spécialité médicale yi té ñuy fajj ñepp ñu nga xam dañu am fièvre maladie chronique moy wala maladie yi nga xamni du walé euh après loolu euh, spécialité ñu ngi tollu ci quatorze 7 tay 7 suba donc nous ñep ku ci nous après day nga la def comme présentation bu ko euh, def déclaration de Dakar ngir wax ni kat spécialité yi ñu fu wo la gis ci seen non transmissible et que li ñu gis ñep faaw ñu wan ko ñi décideurs yi maladie non transmissible ni la Afrique donc comme nous sama français

ñu war leen ni leen ah lii ngeen di lii ngeen di def muy lu jëm ci financement du doon warul doon dong malade yi nga xam ne dafay wàlle waaye malade yi nga xam ne du wàlle am na impact boo nga xam ne am na ko ci ci Afrique et war jot na tey jii ngeen xam ko daal di ñëw nag def ci li war. léegi ci loolu objectif bi mooy euh, état état bu Sénégal daf ñu jox benn terrain fii ci Diamniadio donc pose première pierre bi suba lay doon. Nous ngir ñu un institut de recherche un institut africain de recherche donc ci institut l'objectif euh, objectif bi mooy dinañu fexe ba comme le Sénégal nous avons ni école statistique bu baax bu comme Abidjan aussi Nous avons formé former ay ingénieurs statisticiens nous statisticiens, former ay médecins chercheurs ngir chercheurs. li ñi nga qui choses qui nous ont juste ci feebar yi nga xamanteni du walé donc da fay am groupe groupe de fièvre bo xamanteni xamante ni si spécialité yi ko xamni ñoko ëmb ñom ci lolu rek lañuy ñuy liggéey ngir institut de recherche boobu am ben impact positif ci naka le maladie non transmissible di doxé Afrique waye naka lañuy def ñun ngir tendance bi ñu suivre à temps réel ba paré di ci am ay saafara yi nga xamni mo war. manam ci ci walum financement projet d'habitude dañuy gis ni. Euh, yenn saa yi nga xam ne moo lay jox moom mooy tànn li ngay li liggéey ñun nag buñ nee African Research Network dèjà mooy feebar yi nga xamante ni ci la ñuy liggéey ñun ñoo koy tànnal suñu bopp waaye kenn tamit ñu ko liggéeyal ñoo koy liggéeyal suñu bopp di ay africain dëkk fii ci afric donc euh, financement yi nga xamante ni moo ngi am buy ñëw dañu naan ñun kat ci feebar yi lañuy liggéey ndax gis nañ ni feebar yi kat moo ëpp impact ci Afrique donc bu fekkee da ngeen ñuy financer. financé leen ñu waaye recherche yi ci feebar yi la waaye du ñoom ñoo ñuy choisir feebar yi nga xam ne moom la ñu war a liggéey ndax ci sa xam-xam ci ngay xamee ni kat cancer fi mu ne bari na ci ngay xamee ni diabète fi mu ne bari na nga ne ci feebar yi laa bëgg a liggéey donc doo nag koo xamante ni day ñëw daane la ah dama lay financé waaye bul liggéey ci liggéeyal ci yële donc looloo tax ñuy wan ñuy wax ni feebar yi nga xamante ni si ci la ñuy liggéey mooy yi nga xam ne gis nañ ni kat am na impact ci ci population africaine bi donc képp ku ñuy financé ak ñuy financé ci loolu